Rafet seen and ak seen kóolute ci public SN TV mbok yi ginnaaw bi len leen nuyoo bu baax baax xibaar yi bi ci ap tënk dañu koy door ak appel téléphonique bi am ci diggante njiitu réew Sénégal di Bassirou Diomaye Diakhar ak njiitu réew Russie di Vladimir Poutine ca Bobble appel nag ñaari njiitu réew mi ña ngay di addu si seen yene ngir gëna a relation bilatérale traditionnellement amicale ci domaine commerce économique ak investissement ba na rek kii la di Bassirou Diomaye Diakhar Faye amal ap ceeti qui la di Vladimir Poutine. fële ca Ziguinchor ndongo ya fare ca université Assane Seck ñoo doon yëngu yëngal di fësal seen nakar la sooke yooyu la yëngu nag bokk na ci seen payooru bourse ya ñu jotagul ak ubbiteeg seen campus social ak pédagogique ba tax rekk ñu doon jàmmarloo ak takk der yi. foofee ca Kolda nag lu ak junni ak juróom-ñetti téeméer ak aadama ñoo fay doxantoo feebar bi la bu ñu sukkandikoo ci ay kàddu docteur Thierno Chérif Sy ñi nga xamante ne nag ñoo amee boobu la feebar lu toll ak juróom juróom ñaar ay xale lañu yu toll ci juróomi at fukki at boobu la feebar tax na rek nga xamante ne nii ñooy docteur ya fay yeewoo daal di taxawal ab structure daal di koy dippe unité de traitement ambulatoire ngir ñu mën di saytu ñi nga xamante ni ñoom la foo feebar boobu le daal di dal ñu àddu wax ci leneen ñeel immigration clandestine bi lu toll ak juróom-ñaar fukk ak juróomi doomi aadama la waa marine nationale daal di sauvé démb ci àllarba ji foofe ca île des serpents ànd ceek waa parc national des îles Madeleine yile xibaar nag waa marine nationale ñoo ko daal di xibaar yi bi ci réew ñu dem ba Turquie du wax ci forces armées bu turc bi nga xam ni ñoo daal di teg loxo ñeenti terroriste yoo bokk ca groupe PKK foofe ca Irak PKK nag di ab organisation terroriste bu yàgg def ay ñaawteef. xibaar yi tàggat yaram lañu koy daal di ndax keppe wax ci JOO di Jeux olympiques de la jeunesse ñu wax ko amal file ci Sénégal ci atum 2026 tax rek jëwriñ bi ñu dénk wàllub ñàng wàllub tàggat yaram di xadi Diène Gaye daal di dem ca stade Iba Diop ngir xool fu liggéey bi toll ndax stade Iba Diop boobee ak piscine olympique ñoo war a dalal waa compétition bu جي او او بي li xamoo nekkoon xibaar yi bés bi ci ab tënk mbokk yi di leen jaajëfal ci teewlu bi di leen jox dig daje ëllëg incha allah